Mbakhane Gomis ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, yow ngay secrétaire général adjoint bu syndicat national transporteur du Sénégal tey ñu wax ñu ne ay gros porteurs euh, ñu nga leen taxawal ci ay frontières euh, diggante Sénégal ak Mali ndax li ni dëgg la. waaw ñun li ñuy wax mooy d'abord mosawu ñi nga xam ne ñu ngi dund métit naqar ak ñàkk seen alal ak mënatee ñàkk liggéey. ci ñaari réew yëpp ah, muy Sénégal muy Mali surtout Mali di wax ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo doxal doxalinu CEDEAO muy kuréel gi ëmb réew yi ko bokk nañu xoolaat seen bopp xoolaat seen xel bàyyi xel population bi leen fal ba nu mën a am seen xel boobu. Euh, bu weesoo ah. loolu est-ce que mën nañoo am situation bi tey jii ndax ñaata chauffeur ñoo fa nekk ci ban anam la ñu nekkee ak yooyu. waa xam nga ñun duñu yoruñu ay fiche pour di enregistrer kuy dugg ak kuy génn kon bu la xam nga seen i ñooñ la ñu. non non non xam nga li ñu mën a wax mooy. Uh-huh. ngay wax ci essentiel bi a uh-huh. nit ngay ñaar trop ngay kenn nit le nombre est important. Uh-huh. maa amul sens non lim bi amul sens xam li am solo mooy jëf ji. jëf ji du dëkk. jëf ji du yoon. Uh-huh. jëf ji da war a jeex da war a dakk. te ñoom si yan anam lañ nekkee foofu. anam bu miti uh-huh. anam bu miti bi nga dégg ñu yuuxu fi Sénégal moom la bu bu garaw ñu nekk fi ci frontière yi moom la nekk fa ci mortel man du wax ci problème bi chauffeur dong wala oto dong wala borom wax ci doomi aadama. Uh-huh. doomi aadama bu mënti doon muy chauffeur muy borom oto muy commerçant muy kuy jënd nit laay défendre. nit laa condition yi nañ CEDEAO teg diggante mu Sénégal ak Mali laal du dëgg du yoon. dëgg la président Macky Sall ñun suñu président ñun Sénégal wax sénégalais la ñu jëm fullaam ak faydaam ak pour xool lii ni ñu koy jéem a sutura maa ngi dégg yu ba ci ay rajo ñu naan waa Mali ñu ngi waxtaan ak waa Mauritanie. Mhm. pour mën a jël mën a ubbi foofu dem ci seen ci seen port. Mhm. mais bu fekkee loolu am na mën na gaañ senegal ci ay ko ci koom. Mhm. bu mën na wàññi koom njëriñu Sénégal ci koom ni mu doon am ci Mali yi. Ah, boobu an suñu eh, an suñu kilifa yi réew dama ne waa CEDEAO du ñu buur du ñu bumbi président yi fa ne du ñu suñuy buur du dañ leen a fal bu ñu leen fal nañu aar askan wi nañu aar alalu askan wi nañu aar jàmmi askan loolu lañ leen wax lañ sax seen biir suñu yoon ñëw ci waaye Sénégalais yi population amuñu benn problème lu may jàmm ak bi ay mbokk démb di ay mbokk tey di ay mbokk président Macky Sall lañ naan bu jógee pour xeex dëgg pour njëriñu Sénégal ñu ngi ànd ak moom. bu jógee pour xeex dëgg pour njëriñu Sénégal ak waa Sénégal ñu ngi ànd ak moom bu ñu jógee ne pour seetaan Sénégal yi ñu ko nappaaje te africain yi leen nappaaje. comme moom comme moom moom dañ di jàmbarloo ak moom mu nekk nañ ci biir climat ak boo xam ne kuréel gu am ay nit sàkku ko def ko guddi le seize janvier bii génn kon ci yooyu yëpp mu ko boole ci laa ko président jëlal sa responsabilité bi ñu ngi ànd ak yow. ci xeex li nga xam ne moom la ñu bëgg a teg askanu waa Sénégal di ko teg askanu waa Mauritanie ak askan bépp nit bu bokk ci CEDEAO waa CEDEAO ni ñu xam ne ay nit lañu du ay rab du ay jinne dañ leen a fal du ñu suñu buur ñu suñu buur yàlla ñu moom dañ leen a fal pour ñu liggéeyal askan ñu ñu liggéeyal askan bi ci njub ak ci dëgg mbir mi métti na romb na métti mbir mi ñaaw na romb na ñaaw mbir mi diis na romb na diis loolu bokk na ci bi ñuy waxtaan ka suñu assemblée jaar bii la seet mel nañ ci point boobu pour wax ne président de la République sénégalais yi ñu nga ànd ak yow yu góor comme yu jigéen pour li nga xam ne moom lañ teg malien yi li nga xam ne moom la séddoo bu nga indi taxaw ci liñ ci tax ñu ngi sa ginnaaw ànd ak yow muy guddi mu ñun loolu la ñu mos ñun nag ay syndicat lañu bu ñu gisee lu ñëw day naan gouvernement léegi ñëw bu ñu déggee lu ñëw day naan gouvernement dégg nañu léegi ñëw gouvernement moom dafa toog pour xool nan la xam ne ñoo sañ-sañ ak mën-mënu réew mën lañ ba sañ-sañ ak mën-mënu réew. dëgg la bu ñu waxee dañu seede am ñoom lañ jox ñoom ñëpp. sañ-sañ ak mën ba ñu mën a élection. dëgg a bu ñu xool autorité euh, la ñu population monsieur Gomis population bi ngay euh, défendre mais euh, dafa am secteur d' activité bi ngeen nekk bi nga xam ni bokk na ci ñi gën a am lorange ci li nga xam ne moom mooy sanction yi sànq nga ñu koy wax ci nasaraan am nga tey sa doom bu góor bi nga xam ne situation bi dab na ko fa ñu bëggoon un peu xam rek pour natt un peu métit gi ñuy dund foofa. xam mm-hmm. nga soxorati. ay dëgg dëgg ak lu dëgg. ñun mm-hmm. ay nit nit a tax ñu wax. kon nit ñooñu ñoo moom oto yi nit ñooñu ñooy dawal oto yi ñoo moom marchandise moom ñoo ko yóbbu ñoo ñu koy indil. dëgg la. kon nit ñooñu laa ne li ñu dund métti nañu ko na ko CEDEAO solutionné. Mm-hmm. ñu ngi naan mbaaxal naa solution na CEDEAO doon solution problème bii am tey. ci CEDEAO. dafa ci état boobu ñun citoyen ay soldat du nit ñi li ñu war a bàyyi xel nit ñi ba oh, oh, tabax yi tabax ñi ñëw leen moom ba xam nga sama doom dafa dafa nekk chauffeur gros porteur mm-hmm. di daw diggante moom Sénégal ak Mali mm-hmm. léegi bi lii di xew boobu mu ngi biir Mali moo gisee dama ne ça c'est du miracle ma ne ko noo def ñoom professionnel fala la dawale mm-hmm. xëy na am na am na fa ñu jaar bu mën a génn. Mhm. waaye de loolu donc jafe-jafe la boo xam ne ñu ñëpp a bokk. mais jafe-jafe boobu nag seen jiitu réew réew yi mbooloo doon CEDEAO war ñu ko teg seen ma di défendre benn nit. Mhm. damay défendre un ensemble c'est-à-dire nit ñëpp ñu ni ci réew yi nga xam ne CEDEAO ñoo leen jiite. dëgg la nit ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne ci réew yi nga xam ne ay nit ñoo xam ne Sénégal nit ñoo ñu fal leen. Mhm. te gënuñu leen gënuñu ñu bu gën daam ñu ñoo leen gën ñun ñoo nangoo wàcc yéegal leen suñu kaw ñu tiim ñu nañu jox population yi cër ñu yërëm population yi xam nga ba fu ñu toll ñu xeex ak ak fo population yooyu. Mhm. waaye bu seegee suñu jaay doole jaay doole parce que booloo nañu bu ñu booloo population tax ñu booloo. bu ñu amee doole population tax am doole. d'accord euh, négociation ak yi en toog da ngeen di gën a yàqule daal ci situation de crise ah loolu lu ñu loolu bi ñoom bi ñu am jàmm Mauritanie daaw ñëw Sénégal ah, Mali yàgg na fi Mauritanie yàgg na fi Sénégal yàgg na fi transport yàgg na fi bi ñu am jàmm Mauritanie dafa am lu seen neex lañ ko bëgg am di Sénégal lan moo tax ñu dugg Sénégal ñu amal Sénégal donc loolu nañu fexe kon ba loolu kenn ku nekk sa bopp sama bopp sama bopp ba la gàntu bañ de ñoom bu dee ba am jàmm ju mën a béy ak njëriñ lu mu teg ca Mauritanie dañuy wanaat ginnaaw Sénégal. Mhm. kan moo ci ñàkk ñun parce que bi fi ne dafay nekk tey am na mu fi nekkoon démb am na fi nekkoon barki am na fi nekkoon am na mu fi nekkaat suba am na suba ak population ñoo am kon population bi ne tax ñu bàyyi xel président daal dañ leen nga jël say matuwaay yi nga war a jël yëpp en tant que chef loo ci jël taxaw ci kaw dëgg population bu góor jigéen mag ak ndaw y compris ñun syndicat ñu ngi sa ñu ñun waa transport ñu ngi sa ginnaaw mais ñun lii daan rek ne mooy lu dul dëgg. mooy la benn gis boo xamul kan parce que bi ñu octobre fii ci kooku bi ma woo responsable Sénégal yëpp. nga xam président EDECAC ñëw ñëwoon na yebal ay nit ci tout regroupement Sénégal yëpp responsable camion reporteur taxi bagage oto suuf taxi jaune noir taxi banlieue transport euh, public de transport en commun ñëpp tata yi ñëpp ñëwoon nañu pour waxtaan waat jafe-jafe transport waxtaan waat nu ñuy def transport jëm kanam mais tamit profito ñoom seen bopp ñu gën a dëggalaat ne dañoo tànn benn njiit bu ñu naan Pierre Mbaxaan Groupe muy seen syndicat daf créé benn mouvement Mbaxaan la solution daf ko créé mouvement mu doon bu wér boo xam ne kuréel la ku taxaw ci biir Sénégal nekk mouvement national Mbaxaan la solution ba pare ne taxaw nag dafa taxaw nag tem man bokk ci li ma ci gëm te sañ ko taxaw tem ci fulla fayda dëgg d' accord looloo ruuse daal ci euh, assemblée générale bi nga xam ne amal ngeen ko bu situation bi nga xam ne moom xaaral dañ ci dañ ci insisté te nag ñun ay chauffeur lañu moo tax ñu daje woon. dëgg la ñun ay kilifa la ñuy jiite ay chauffeur moo tax ñu daje woon. dëgg la mais ñun aussi ay nit lañu moo tax ñu daje woon mais aussi ay Sénégal lañu moo tax ñu daje woon. dëgg la kon nag Sénégal Malien ba ne Mali ak Mali bi ne Sénégal ak Sénégal bi ne Mali ak Sénégal bi ne Sénégal ñu yemale. ñun ñun yi la ñuy xeex di aar seen di aar seen seen ak ak seen yeneen ci loolu nag la ñuy wax lu ñuy yëg lu ñu dégg lu ñu xam. ci luñ sañ en tant que syndicat nañu ko président daal Macky Sall mi suñu président nañu ko waxee waa CEDEAO mi nga xam ne kenn ku ne fa te population ñoo la fal ba nga doon président réew mooma nga ñoom ñu soog a boole benn collectif doon la CEDEAO nañu doon CEDEAO buy dimbali ay nit. mais bu ñu doon buy lor ay wala buy wala bu population. d'accord euh, sëñ bi Mbaxane Gomis ñu lay jaajëfal bu baax a baax. man ni maa lay gërëm maa lay